sénégalais yi nga xam ne si xalaat baax lañ yor noonu quoi dinaa ko ko wax ci réquisitoire procureur la information bu sa morom moom moom day délégué léegi ñu indil ko tous les informations indil ko ba nga juddoo ba tey ci sa yaay ak ci sa baay fi nga jaar yëpp waa ji xam na ko moom bu ko neexee ay minute mu xam fi nga jaar kon jarul nga fay dem di ko ko wax di sonal sa bopp loolu day mel ne saytaane yow day mel ne da ngaa bëgg ñu <laughs> def moom xam naa ne yéen Ahmed nag sono loolu leen non yàlla nañ ko bàyyi. sonaloon non Ahmed moom ñaanaluñ ko lool Ahmed du dem ferme moom incha allah loolu moom du dem ferme loolu moom ci kàttanu yàlla man li ngay wax yëpp waxuma ko man xaar sama kaa hmm. bàyyi leen kaawu jàmbur yi ngeen di sukkandiku surtout nit koo xam ne sama jege ñaale la man Ahmed Ahmed ma ne da nga war a invoquer clause de conscience. waaw d'accord clause de conscience. xam nga ni moo tax ma ne la déggoo ma la sëriñ a ngi man ndax trompé naa journaliste ci article. Adji saar bu muy quitté Sénégal di dem te am journaliste bu ko for woo ma laaj ma ne ma dégg naa Adji day dem dama ci bëgg bind article matin ma ne ko noo demul maa ngi moom nii sali expliqué ko mu bind ne Adji mu ngi fi nangam xel yi détourné waat aji dem ca ca suba sa mu yëg ne dem na mu woo ma ne ma yow musoo maa def lii ma ne ko yow ku nekk ci problème vie menacé wu muy quitté di dem yow nga ne ko bëgg ne ko fang te mu génnagul c'est-à-dire ko bëgg a jaay bala nga koo jaay nag jaar ci man yow man ma jaay la yow. foofu ma ma ma am fa benn parenthèse ndaw Omar looloo taxoon nag ñu ni woon ñu ni woon leeral. ak wax wax leeral ba tudd ci ci ay mbir te bi ñuy enregistré Adji Sarr leeral foo direct la ko defoon saa veut dire que aji Sarr moment yooyu suñ ko diloon def ko direct. très très rapidement gars yi localisé ko. te fa la ñu koy fekk ndax mbir mi yeggoon na foo xamante ni yaa ma gën a xam mais leeral daf ko def foo direct. te ils n'ont pas compris le faux direct moo tax lañ ca wax yëpp ñu wax ko ci aussi. day ay dañoo doy waar. parce que foo ya xaaral xaaral ba may ma daan. est xam nga ni yow yow. yow am amnistie bi bu tëbee est-ce que duñ la boole si dossier yow. man damaa dàmpalu ji woon dañ maa fudd dañ maa bës. ah yal na Omar nag. Ah. Ah, ah, da ngay sax damay kupp <laughs> waaw damay kupp bu giraani man da ngay évoqué affaire yoo xam ne dama defal langue defal langue ce qui s'est passé dans l'histoire Sonko Adji Sarr c'est extrêmement grave te l'histoire non defal naa pour tout le monde pour toutes les personnes ah, yoo xam ne nii qui sont mêlées de près ou de loin à l'affaire Sonko Adji Sarr hmm. ces personnes là hmm. ah ah lu euh, ne la nit ku supposé acte xaw ma nag ah xaw ma nag damay wax rek damay wax parce que xam nga yow toog xam nga man xam nga yow yaa toog ne ma Adji saar lii Adji Sarr lële aji saar bañ koy woo non ngeen baal noonu quoi <laughs> mais dama ne la maanaam dans l'histoire Sonko aji saar toutes les personnes yoo xam ne nii ils son mêlés de près ou de loin journalistes techniciens politiciens avocats eh eh ñoom ñëpp si loo xam ne nii ça a causé plus de quatre-vingt-six morts mm. yoo xam ne nii saa ay nit ñu bëri yàq ñàq nañ ci seen alal ay nit ñu kii dama ne la ah tey de am dee si bi bu sote woon jàpp naa ni de même bu fekkee affaire de témoignage rek hmm. war nañ leen di war nañ ci woo ñu bari hmm. mais daa am test boo xam ne dañoo war a xam borom ba pare suñ tàng xamuñu borom koo woo la wuyu. tey maa lay gré quoi. Ah, ndax war a moo tax man moo ma teel teel naa la teel naa la wax maanaam mbirum Sonko. Hmm. ku ma ci woo du ma wuyu ji tànk deful test ADN ba pare. ku ma woo du ma la wuyu ku ma laaj du ma la tontu ku ma xool duma la faale xam nga lu tax daa leer naa ñu science. moom mooy dimbali justice léegi moo tax ñuy wax police scientifique moo tax kii naan dinañ la woo bala ñoo woote moom xam borom moom bu gis nga bis ah, borom moom bu ñu ko xamee rek woote bi leer. non bàyyi indil ko leeral. yow mi wax nga ko. Euh, euh, ngeer ngeer euh, test ADN bi xamul tax mu am erreur foofu xam nga problème test ADN xamul tax mu am foofu. <laughs> non xam nga problème test ADN xamal tax mu am foofu. Hmm. xam nga dafa am lu ñuy naan réquisition à personne qualifiée. tey jii maanaam. xamul yooyu euh, nit tey ji euh, tey ji aji Sarr bu fekkoon ni euh, moom ba muy porte plainte Ousmane Sonko juste directement balaa moo dem au niveau de kii mooy dem dem Grand Yoff si kii bi wa si médecin bu fekkoon dafa njëkkoon dem si un gendarme yaa ngi dégg gendarme bi defal ko réquisition ci réquisition mu dem def loolu ñu jël prélèvement yi mais prélèvement yi bañ koy def demuloon ci gendarme moom dafa dem ñu defal ko bu ma juumee nag nga wax dafa dem dafa dem non defal naa dafa dem da moom dafa jugee dafa jóge Sweet boote dem hôpital ba mu demee hôpital si lañ defee prélèvement bañ defee prélèvement après si la jóge hôpital si ëllëg si xawma après lendemain si la dem au niveau de la gendarmerie gendarmerie def réquisition à personne qualifiée ci la jóge waat noonu dem ci la gendarme ci la euh, médecin bi defee waat ay analyse ay affaires yooyu léegi première kii bi si la ñu ne waaw waxal hmm. ku ko wax du dëgg moom premier ah, jour ah, ah, moom balaa moo dem ci gendarme yi demul hôpital man maa la mën a wax procédure fi mu jaar am na gendarme benn faux gendarme bu génn tañ raje ko di wax loolu day fen bu ko wax day fen mm. dañ ne nit bu ñu ko violé bu mu sax sangu yére yi mu sol sax bu mu ci changé dara médecin ba la war a njëkki moom mooy établir doo njëkkee gendarmerie de ku ko wax day fen ñi ñu fi violé yépp dem leen pour audience yi man eh, audience viol moom li ma ko teewee du jeex du xaaj nit boo gisee sa doom yenn comportement yi dañ ne na ko jël yóbbu ko hôpital ñu examiner ko defal la certificat médical nga doog ko porter plainte plainte bi du jiitu. parce que plainte bu jiitoo xam nga lu la euh, gendarme bi laaj ana sa certificat médical. gendarme bu lay laaj loolu moom xaaroo ci réquisition dañ doon jaxase xelu nit ñi parce que xam nañ ay mala ñoo topp Sonko ñu bëgg ñu détourné xaaral rek xaaral ñu bëgg ñu détourné que xale bi dafa waroon a njëkkee gendarmerie du dëgg bu nit ki même gaañu sax bu ñu la dóoreen xeer nii hôpital nga jëm soigné sa bopp léegi diggante bi fekkee xale bi bi nga koy siif ak am noo ko def ba ba mu am jële ci ay traumatisme day njëkkati euh, gendarmerie temps boobu yeex bu dee guddi la nag day xaar ba bët set man ndax nit ñi nañuy jëfandikoo seen xel yi capitaine ture il tele tellement malade moo tax waxam yooyu yëpp mu doon wax pour xamal am na ne ay mala doo nga koy diglu xaaj bi di ko gëm mais nit ki bu ñu ko siifee day lagg ci hôpital ñu defal ko prélèvement ñu ñu ñu ñu examiner ko defal ko rapport. Alfayda Gaye la moo tax tenir ci compte bañ a tenir compte. lu tax ma xam jàllo ne Sonko est-ce que pare nga pour def test ADN bu ci teniroon compte dina ko wax. te médecin bi moo ko recommandé Alfayda moo bind ci kii bi certificat médical bi man si phrase boobu rek ci jàpp ndax moo ma ci intéressé des prélèvements ont été faits en vue pour lan la. waaw ah, pour test moo ko recommandé n'est-ce pas te médecin médecin bu waat la. nga yaakaar te ceci da ci tenir compte bu ñu lëndamal xelu nit ñi dossier boobu kuñ ci woo te defuñ test ADN bul wuyu bu leen faale bu leen toppatoo bu leen regle na test bi génn rek ñu xam kan moom moom yëf ku moom yëf nag yaa rey boo yi na leer muy man muy sama borom ku moom ndox mi yaa rey boo yi parce que boo leen waxoon maa ko moom def naa ko fa duñ dee kon ku moom ndox mi yaa rey boo yi ñii seen cas dafa na si bi bu tëbee. damay ragal moom bi sax mu dem prison. <laughs> de kan yow lay waxaat kan moo dem prison ci lan lu si sama yoon. <laughs> demoo suite demaanoo suite beauté sa yoon nekk ci suite beauté bi moom bu tëbee. jeex na ah, ah. dina hmm? gis nga mbirum suite beauté bi dañ cee war a Macky Sall jotee ak Abdoulaye Mbaye Pekh ah li mu joteeg peex. fait divers nga fi indi fi nekk. ma ne ko peex. fait divers fait divers la fi indi. peex c'est le c'est le griot du peuple. Euh, fait divers la fi indi. waaw mais journaliste la donc bàyyil fee di bàyyi ko rek Macky Sall Khadim Samb la doon remercier di ko wax naan ko góor nga ko baax nga naan nga naan yéen ñi àdduna jaru ko léegi mbay peex moom kan lay wax daa tudd mbay peex mbay peex ba mu génnee kan la doon wax la naan kay mbay peex a wax Amadou Ba mooy borom jàmm ak njëriñ tëjul kenn waaw nanguwul këru kenn waaw d'accord <laughs> tëjul kenn laay sa kenn Ousmane Sonko nag lu ko waaye wax danga koo tooñ mbay peex a wax la ko hmm. waaw yàlla baax vidéo yaa ngi ah yàlla baax na fi gis nañ fi lu nekk dafay joxe ay 2 millions ak yooyu. ci campagne bi ci campagne bi. 2 millions waaw 2 millions ah 2 millions 2 millions 2 millions 2 millions bëriwul. nga naan tuuti. ki dafa millions. 2 millions par bopp benn mais 2 millions yu bari quoi waroon a wax ni génnee na paquetu nangam millions. non les échos les échos non les les moom sont émission bi émission bi jeex na Omar bu fi waxati waxee waxi Sweet Beauté yow bu fi